Thank you. ci Cheikh Jongo ndeysaan foofu ñu gërëm ko ku ci mel ni El Hadj Ousmane ku ci mel ni El Hadj Ousmane Dia ñi ñëpp ay jàmbaar yàlla lañ xam ne àndoon nañoo ak moom ci ci loolu nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy umul xolaa ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ummi càmmile maanaam soxnaam su nga xam ne jàmbaar yàlla la euh, tubaarikàlla ñoom ñooñu ñëpp taxawoon nañu taxawaay bu rafet pour gis ne umul xolaa la nga xam ne loolu la ci Moustapha bëggoon mooy jàngal doomu jullit yi mu ñu am ak ñu ñàkk waaye dimbali sax doomu julliti ci sponsorship maanaam am na ñu bëri ñoo xam ne ci xale yi dañu doon def ay pexe di leen fayal ñuy jàng si daan na am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo leen daan jox tabaski am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo leen daan jox ci jamono weeru tam xarit dañ daan génne xaalis jënd yi xar jox ko nit ñi maanaam liggéey nañ ay liggéey gas nañ fi ay teen samp nañ fi ay maanaam defar nañu lu bëree bëri bëri bëri te te boole ci coow ah, defe naa li ma xam ci moom bëri na waaye xëy na mën naa yem fii Euh, li nga xam ne mën naa la ko wax itam moo di bi nga xam ne génn na àdduna man seeti naa ko ndakaaru fekk boobu feebar bi sonal na ko waaye jamono boobu bi ma demee bu ma xoolee rek sëgg maanaam nanguwul suñu ñaari ba daje bu ma xoolee rek sëgg bu ma xoolee rek sëgg bi mu génnee àdduna la gis ne moom ndekete boobu xeetu tàggoo la woon daal euh, bi nga xam ne génn na àdduna nu yóbbu ko Medina denc ko foofu ca bàmmeel yi nga xam ne bay fi daawu nako ci anam bo xamne mag ñi xamnañ ko wax nañu ko te lolu moy la fa am ndeysaan mu nekk bés bu reey nak gis na keroog ibrahim Mahmoud jo Barham ñëpp xamoon nañ ko yalla yàlla yok ay leeram ñëpp xamoon nañ ko ci dal waye genn wal mustafa genn walam la woon loxo joron la woon xelam lu léppam la woon danaka keroog gis na ko ci bammel yi ci anam bo xamne ma sha allah euh pour wan la ne la tubaarikàlla mustafa Lo bés bobule Medina kenn xëju fa ndax nit macha allah ndax ñëpp a ko xamoon nag wax dëgg foofu lañ ko denc ci boori waayam waayam ngoo gi tuur Mouhamed Lo euh, bi mu génnee àdduna ajuma bu ca topp ndax xam nga boobu ci rajo bi dañ fa am si télémis rajo dañ fa am programme bu ñu wax ëttu Mawlana Cheikh Ibrahim Zaataanu ñu defal ko nag benn benn fàttaliku bu rëy te rajo jooju ñu bëri ñëw nañ fa lu war a mat juróom-ñeenti nit ñoo xam ne ay kàngam lañu ci xamu nañ ko sunu mbokku ma tayib ci am nekk ci Angleterre sax daf ko fi fekk mu yëg programme bi ci rajo bi rek daal di ñëw ñoom Baye Mbaye Lo ak ñoom Cheikh Diong ñoom ñëpp ñëw nañu macha allah ñu defal ko programme bu rëy comme lii ngay lu mel ni lii rek laaj moom mooy kan keroog jooju programme boobu mi ngi waroon door two thirty ba four waaye dafa dem ba five thirty téléphone yi fu nekk di dafa koole nit ñi ñëw di joxe seen seede mu nekkoon koo xam ne kilifa la woon lool lool waaye doo ko yëg ci moom bi ñu jeexale programme rajo bi ci ci laa waxee ne man daal gis naa ne Moustapha yey na pour ñu defal ko bés week sax laa waxoon cultural week boo xam ne at mu jot danañ ko màggal wax ci mbiram wax ci li mu def loolu xalaat la pour pour dëgëral taxawaayam ci biir société bi ak itam waxtu bu nekk rek ñuy bàyyi xel ne war nañ ko yónnee ay ñaan gaa yi rafetlu ko ba ñu demee ca professeur Baram Diop buñ ko ko waxee mu ne leen semaine one week dafa bari wax nit ñi du du dafay rëy ci nit ñi waaye def ko daal lu mel ne ajuma samedi dimanche loolu moom lu ñu rafetlu la ñu defatlu ko lool loolu mooy programme boobu mooy dox ba léegi ci su office bi foofu ci site bi rajo la soso euh, macha allah euh, baram doxal na ko ajuma samedi dimanche waaye dem nañ ba mujj gi ñu gis ne ajuma samedi dimanche dafay métti mujj gi daal daanaka dimanche rek lay doon nit ñi ñëw def conférence waxtaan ci moom waxtaan ci liggéeyam waaw wàcce fa ay kamil euh, def fa ay ay teranga ak yu mel noonu ak yooyu waaw ba bu yàggu nag bi nga xamee ne professeur Baram dem na jiitu na ndeysaan nu jox programme bi mun Amina Ibrahima Niass moom itam mu taxaw ci taxawaay bu rafet rafet rafet waaye gis nga ko bi nga xamee ne moom mi ngi fi liggéey na liggée na liggéey na ba am nante woon na góor gu baax gu ñu wax góor gi El Hadj Abdoulaye Cissé mu nekkoon imaamu Sinthiou El Hadj nekkoon kilifa gu màgg mooy pape alkaali euh, ba góor gi mayoon ko suuf su ama am solo foofu ci euh, Koungheul euh, wala boori Sinthiou. waaw gannaaw ba nga xamee ne moo tax topp mu baax am na solo gannaaw ba nga xamee ne làqu na mm, suñu mbokk Alaaji Baye Mbaye Lo taxaw ci taxawaay bu rafet moom itam ba yàlla dogal suuf soosu ñu jox leen ko góor googu nag ne nekkoon góor gu baax goo xam ne wóllëre Moussa Fall woon muy góor gi Alaaji Abdoulaye Cissé ba school boobu tey jii mooy school moo mu xuraa bi gën a mag bi bële mooy cosaan bi nekk fii Fajokounda mooy cosaan waaye bële moo gën a man ndax moo ëpp classe Euh, mu nekk school boo xam ne Gambox tam liggéey nañ ci taxaw suñu mbokk Alaaji Ibrahima Thiam def ci taxawaay bu rafet moom itam moom ñoom Oumy Thiam loolu daal defe naa mën nañ ko wax ba léegi yaa ngi am ñaari mu xura benn baa ngi fii Fajukunda benn benn nekk fële Kunku Jang yëpp taxawaay Moustapha la woon dundam barke na dundul dund gu yàgg waaye nag dund gu barke la waaw ku ci mel ne Aliou Thiam ñu xalaat ko ndax xaritam loon ak Seynabou Thiam ñoom ñooñu ñëpp Seynabou Diop ñoom ñooñu ñëpp ay nit la ñu ko jege woon ñoo xam ne ku ci nekk rek mën nañu wax ne am nga xaas si moom defe naa daal bu fekkee ne amuloo leneen looy laaj mën li baral mën naa foofu di ñaan yàlla yàlla barkeel sa liggéey euh, lii ngay def yàlla lu ama am solo la ndax sunu nit ñi baax na ñu leen di waxtaanee pour ndaw ñi nga xam ne ñi ngi ñi ngi jóg te soxla ay royowaay di xool ci ñoom yal na yàlla gërëm la yal na yàlla. ndax am na bés sax mu jëlal ma suma xale bu ñuy wax ay solo mu nga léegi maali suma jarbal laa ko may fële si biñ ma ko jëlee umul xuraam war fee jàng. ci li ma la wax ne ku bëggoon xam-xam la ku bëggoon di joxe xam-xam la doon nit koo xam ne defarkatu nit la ba ma ko waxee mu ne ma kooku sama doom la du fay dara nañ ko jël ma amee uniforme am ak payam lépp loolu defal na ma ko ma kontaan ci loolu jël suma xale yi man ñu ci bëri te ne ba baqara bi naasi muy xale yu jigéen ak xale yu góor yi xanaa xale yu góor yi waaye jigéen ñi ko wut alxuraan ma ne ko li ma la bëgg a njukkoolee te gërëm la sant la ñaanale la ko yàlla téere belle bi laa bëgg ñu indil la ko jàngal la ko ñaan la yàlla yàlla matal sa càkkutéef mu ne ma loolu nañ ma ko yóbbu ci école bale ca Fayekounda ñu ne ko umul umm, xuraa ndax man fii laa am mooy sama meññet kare ba mu ko waxee nag sama yaram bi daw na ndax yàlla dénkut ko doom mu ne lépp lu ma nit di ñaanal rek ñaanal ma ko fii ci يسكن بيتي أم الخرى كرب ما عندي خالي ما نقول بسم الله أبل جل البخار من ما دير خالي نيو يدفل خالي نيو جانغ تيربي جانغ خات مبي تبغى خم خم بغى القرآن بام لام بحوزم خاص بام تشوف بارين الله بأسوات كرام ببلاش خاطي ببغناك بايم بغناك سواي بام دعك بيلا يوم يديني سما دوم إبراهيم الله بيمو تود بيم بيمو تود بيمو بيمو تيرب تشوبين garaam bu boobu moom laa ko jox ak li seen bokkam mi indi yëpp ak li ma yóbbu woon yëpp ca xaalis teg ko ci loxo jàngalekat boobu keroog jàngalekat boobu dafa kontaan ci ci benn mu ne ma teranga bi ma defal ci jàngale le ngi ko soog am mu garaam bu bi mu jox de bu soobee la maa ngi ay mbubb waay du ma tàggu di ko sol di ko jullee ju jumaa fekk bu muy ràppee bon na xam nga ne doog jëf yooyu du doog loolu Moustapha def na ko man suma doom day fàttaloo fan yi rek la moo ko dimbale jàppale ko gannaawam fii la doon jànge ba daanaka bi muy dem Saudi daanaka yaaxal si ne ci school bi ñoo ko toppatool Minha mu génn dem suma doom Ibrahima Lo moo ko toppal Minha mu génn dem mu ko Saudi di jàng foofu suma beneen sët ñu ne ko Ibrahima Lo doomi Moustapha Lo foofu la génnee moom it mu ko Saudi dafa jàng demeen nag ñee nga Qatar ñee nga Imaaraat ñaa nga Dubai ñaa nga loolu yëpp nag ci liggéeyam la ba ci doomi boppam joo xam ne sax rakk ma ko jur sax muy amaloo foog naa ne xam ngeen ko sax moom it génn na jàngi bon ku liggéey ci diine gi la ku bëggoon xam-xam la ku xam-xam ñoroon la ku doon defar nit la te damay wax ne ki gën ci nit ñi mooy kii defar nit ba baax te Moustapha Lo rek ko ñoroon iskul boobu ci umul xuraa ci Fajir Kunda maa ngi leen di seedeel na kër boppam la turam a fa ne bi mu génn àddina kër gu paree sax bàyyiwu ko fi léppam jox na ko xam-xam ak alquran mu doon nit ku baax ku tabe ku yaatu ku mën a defandi ku mën a ku mën waa lu aju si affaire yi comme scholarship yi yi nga xam ne moom la daan moom la doon joxe. wala moom na doon góorgóorlu pour euh, am ko jox ko taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ronam ñu nekkoon ci lo ci école bi nga xam ne moo nekkoon ci doon masjid Umul Qura na ci lu nekk comme ni ma la waxee woo rek maanaam mébétam dafa réyoon dafa kowe da nga xam ne euh, Moustapha su mënoon a tabax université na ko tabax fii si Gambia euh, te mënoon a def lu nekk daal mënoon na ko def fii si Gambia si itteem uh, bu kowe jéem uh, na mm, ay yoon yoo xam ne e, e, dimbale na ay nit ñoo xam ne dem nañ te fekkul sax ne ay taalibe lañ ci ci e, madrasa bi madrasa Nuruddin mun naa ci lim xëy na benn wala ñaar parce que bari nañ uh, yaa ngi am ku mel ne Musaaba Musaaba biñ ko biñ ko biñ ko bi moo dem mi ngi ko utal min mu dem moom sa jàngewu doon sa umul qura moom muslim la jànge ñëw nekk diggante ba Moustapha Moustapha si loxoom si si la jaare dem äh, ak äh, ñi ñi jaar am am nañ ko mel ni Roxi Maane Roxi Maane mi nga xam ne moo nekkoon secteur bi nekkoon ah, soxna Cheikh ah, Jonga am nañ tamit äh, ñeneen ñu bari waaw ñu bari ñu ñëpp ñi bari daal ñu ngi ci biti ñoo xam ne ñii jànge nañ ci muassa bi ñi jàng wuñ fa eh, am nañ ay minax yoo xam ne ñëpp ñu bari am nañ ci bedem am na ci ñoo xam ne jàng nañ ma jeexal am na ñoo xam ne ñu fa liggéey style am na ñoo xam ne dem nañ ci yeneen dëkka waaye yooyu dafa bokkoon ci ci mébétam yi la bokkoon manaam mébétam yi moo rëy daal maanaam ci site boobu mébétam mooy woon na utal xale ñu jàng ñu am xam-xam suñ demee jàngi suñ ñibsee nag liñ jàngi ji woon gannaaw moom am na defar na am am na mu am na yéene am na fu mu mu aaga xale yi suñ demee jàng ji ba ñëw ñu jàng different dem jàng different lii nii suñ ñëwee ñoom ñoo ñoo ñoo toogaat amewaat mu asasa bi su ko defee si ci ci ci majaal bu nekk ci ci ci xam-xam bu nekk façon xam-xam bu nekk su ko defee ñooñu su ëllëgee parce que moom daf doon sóoraale sóoraale woo déem comme time bi fi nekkee ak time bi dafa sudale ba si kanam bi si sët sëtaat léegi nag muy doon tabax loo xam ne euh, dinañ dema dema dem ba euh, ñim ñim ñim ñim ñim ñim ñim tabax yooni leen suñ ñëwaa suñ ñib si rek ñoom tamit suñ ñëwee ba tabax rek dafa digër dafa am solo waaw affaire de mun a puusu dem ba mun a àgg fi nga xam ne mooy wan me betam yàlla dogal na xëy ne fekkee woon ko yëpp waaye dafa ko ne ba léegi mu ngi fi wallahi dégg nañ lu rëy a rëy ci Oumar Kora su mu fi ba léegi parce que bébi moo génn àddina sax xale ma xalaatam yëpp mooy mu osa naka laa demee ci kanam waaw waaye na yàlla boole ko tamit ak nit ñoo xam ne ñu am ixlaas lañ ñoo xam ne mosu faa toogut man tooguma moom mu ngi diggante tukki di dem ak ñëw waaye tukki bi yëpp tamit du tukki dem ci bànneexi ba kanam tukki bi yëpp mooy nu muy def ba umul xuraa na na dem ci kanam ci anam gu nekk nag bu mu ko mun a amee su dee min xalaat na ko uuti ji ñoo jox ko xale yi su dee alal la mu mu mu indi ko su dee sponsorship la ñu indi ko ci yeneen mbir ay programme yoo xam ne mu ngi ci muasa bi su dee ay téere la mu indi ko ci ci muasa bi su dee ay équipements yoo xam ne dañ ko soxla typewriter computer anything mu indi ko ñu doomi muasa mun koo jëfandikoo parce que ñooñu la jàpp na ñooy njabootam waaw moom xoolul keneen ne mooy njabootam xoolul keneen ne mooy mbokkam moom muasa umul xuraa mooy doomam madrasa bi mooy doomam mooy léppam maanaam mooy léppam si àddina bi léegi nag lépp lu mun a def teral doomam ba teral ah, njabootam ba yëkkati ko ci kanam bi àddina bi yëpp yëg ko bi àddina bi yëpp gis ko ci xam-xam ci am-am ci yokkute ci lépp moo nekkoon benn focus am si loolu la focus rek waaw xëy na nag léegi-léeg doomu aadama dina bëgg te téye du ko àggale te ni mu ko ni mu ko buggee waaye su fekkoon ne ba léegi mu ngi fi alhamdulilah rabil alamin ñi fi nekk ci gannaawam nag moom daanul toog waaye toog dem bi yëpp li ma la wax rek léegi la ci si fii rek la jëm si mos am soxlawu dara utul boppam dara dima pour uti alal pour dara parce que amul dara lépp moo génn àddina bàyyi fi dara waaye nag euh, li mu amoon yëpp foofu la ko doon dugal ñi mu xamoon ñëpp tamit. pour umar umar Kora deful boppam utal woon boppam dara utal woon boppam dara dara dara effecting rek umar umar umar Kora la yàlla boole ko ak ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla ñu seela lañ ñoo xam ne euh, ku leen am sa gannaaw su la neexee nga tukki weer ñaari weer at doo ñëw loolu moo taxoon su demee dafa xelam bi dafa dal parce que su demee dara du manqué li war a dox mu ngi dox li war a lijjanti ñu ngi ko lijjanti li ñu war a def ñu ko def ci programme activités yi lu nekk rek mu ngee dox nu mu war a doxee waaye dafa bàyyi ñoo xam ne ñoom ñoo ami liggéey bi moom daanul liggéey dara parce que daanul toog moom dégg la tur bi la am rek waaye secret bi mu ngi woon ci ñi fa nekk di ko liggéey kenn si ñoom nga xam ne yàgg na ak moom muy Cheikh di suma mag ñu bokk benn ndey ah, ah, moom moo nekkoon secteur général bi nga xam ne loxo mu ngi fu nekka mu ngi ci madrasa bi mu ci activités yi mu ngi ci lu nekk eh, jabaram si tooxi maane nekk ndeyjooram waaye ñoom ñoom ñu nekk ndeyjoori Moustapha ñu am oustaz Aliou Thiam doon naib bi borom xam-xam bu sell te am ko te yëgul ne mu ngi ko am ah, bugga Moustapha ci xolam mbugeel koo xam ne ah, amul ngistal moom Aliou Thiam ah, yàlla boole leen. lépp lu la réer ci Moustapha soo ko xam xamee dama ci Aliou Thiam parce que Aliou Thiam la trostoon bi nga xam ne secret yu bari Aliou Thiam la ko daan wax soo buggee xam ci Moustapha loo musta xam rek demal ci Aliou Thiam su na bu wut na la ko wax euh, mu am Ousmane Dia usmaan Dia tamit di xaritam benn bakkan nga xam ne depuis ñu nekk euh, yong ñoo ànd di yëngatu ci li ñu koy yëngatu Euh, ñu ànd ñu ñëpp ñu dem Saudi ak seen jabaram ak ak ak man ñu ñu nekk foofu mu nekkoon Medina a euh, ñu ñu rakkaam tamit Baye Mbaye bi mu taxarujee moom tamit jaamiyatu Umul Qura moom tamit mu ñëw tamit bokk ci ma bi ñu nekk ci liggéey bi jàppalante mu nekkoon euh, toppoon ci Aliou moom tamit ñu am fa ñeneen daal Ousmane Diop tamit doon xaritam benn bakkan di seelal nga am fa Mouhamed jaaloo man mi tamit foofu laa nekkoon di fa liggéey Euh, ak Rohey Mane ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fa euh, nekkuñ ci idaara bi waaye daanaka ñëw ñëw amee mu asa umal quran so mun nga am ci teachers si jàngalekat yi ñoo xam ne ñu ñu baax lañ ñu jub lañ ñu sell lañ ñu macha allah ñii daal la Moustapha am équipe bii daal la Moustapha am nga xam ne ñoo daan doxal mbir mi Aliou Thiam Baye Mbayloo Ousmane Dia Cheikh Jonga Ousmane Diop Rohey Mane man Euh, oustaz Diallo ak Seynabou Diop doon jabari Aliou Thiam ñooñu ñoo nekkoon euh, administration bi ñii la la la lii yoon ñooñ ñoo ñooñ ñoo ko nekkoon daal alhamdulilah sant yàlla Moustapha def na lim mun daal wax dëgg ne yàlla def na lim mun lim defoon na ko alhamdulilah bi affaire bi jaar na ci yoon daal juhudihi fi tawfiiril mina foofu moom point boobu moom dinaa ci sawar lool pour wax ci parce que dafa nekkoon loo xam ne daf ko bëggoon li tax mu bëggoon ko moy ne fam njëkkee sos pour ibbi école pour jàngal xale yi fam sosee école pour jàngal xale yi kooku suñ la waxee ne la yéene na xale yi lu lu ëpp loolu di ko gom parce que fii nii ba Ummul Qura taxawee mu madrasatu Nuuridin mu taxawal ko lim doon wax mooy ne dafa bëgg a madrasa bi dem ba université kon waxtu bu nekk def daan taxaw pour xale yi nu ñuy def ba seen njàng gën a dem kanam amut université fii nii waaye dina daan dem tukki si réewi naar yi di lijjantel xale yi ay minxa te moom minxa bi su xasee ba indi seetu si mbokk seetu seetu si xarit seetu si jegeñaa jegeñaale moom ki ko ayoo la koy jox te laaju si butuut dem na ba yóbbu na ñoo xam ne nii si min xam yooyu am na ay nit ñoo xam ne demee nañ ko nekkuñ sax ñoo xam ne umul xuraa lañ jàngee nekkuñ ñoo xam ne sax moom daf leen xam dafa indi min xam bi teg ko ñooñu soxla min xam bi mu ekkiti jox leen ko te jox laajut leen butut ay xale xale yi nekk si biti léegi jàng ba pare ba defa dafa liggéeyee ñëpp si juhóodi Seex Mustapha moom moo ko tàmbali donte fekkeewut njëriñ bi waaye loolu yëpp lu mu la lu mu la moo tax si gannaawam dafay gën a dem kanam rek waaye du dellu ginnaaw soo demee si jaami ati duwal arabiya amul benn dawla arabiya dawla xalijiya booy dem te doo fi fekk ab naamu asati umil qura parce que ñooñu la doomoo woon waxtu bu nekk su toogaan def ko daan puugare woo mu asati umil qura mooy suma mooy samaratu xayaati te samara samara boo ko déggee ay meññeef la te ñan ñooy meññeef yi mu asa umul qouran mooy student yi fi nekk di fi jàngee moo taxoon mu éene woon leen lépp man mii di wax ak yow ba may tukki fekkeewul suma tukki waaye tukki bi moom moo ko lijjante moom moo dem xatar lijjante suma minha yàlla def man ba may ba minha ba di ñëw fekkeewu ko ñu ngi koy ñaanal yàlla fa mu nekk yan na ko gënal fi mu jógee yaa rabbi lépp njëriñ bu mu fi bàyyi yan na ci ëppale bi jaaxi sayyidul wujud parce que dëgg-dëgg lim def ak lim ñu éene ñaanam barke boobu noonu bàyyi na ko fi ñun ci liñ nekk nii tey lépp moom la du kenn ku dul moom parce que am na nu mu doon demee ñun liñ ciy jëriñu tey mun naa am sa ay mbokkaam sax jëriñuwuñ ko ci kon bu boobaa ñu xam ne lim éene woon doom aadama yërëm doom aadama yërëm xale moom buy jëflante ak yow da ngay foog ne sa morom la loolu yëpp mu ngi lay jàngal si biiri waxam di la jàngal àddina man de xaw ma keneen de waaye man li ma jëriñu si Cheikh Moustapha Mouhamad Lo rahmatullah alayhi dama foog ne man rek man la ko yàlla wàccee loon parce que dëgg dëgg la yàlla bu soxlaa yéen dangeen di ñàkk waaye man dama fa man dama jàpp ne man maay ki ñàkk parce que man jàpp naa ne mu ma doon prépare prépare boo xam ne bu ko fi yàlla bàyyi woon ni ko doon foog naa passé naa fi bu yàgg waaye alhamdulillah lim def ci man xeebu ma ko te xam naa lim def ci man mooy lan xanaa di ko ñaanal yàlla rek fam tëdda yàlla bis buñ ko fay fekk yàlla buñ rus ci kanamam lim ñu bàyyee kóllëre bi yan nañ ko gën a sàmm te dara bum yàqoo suñ loxo bi jaahi sayyidil wujud li ma mën a wax ci suma wàlli bopp mooy ci two thousand ak an uh, wala nineteen ninety seven jàpp nineteen ninety eight mu am benn yoon ba mu fi ñëwoon ñu ànd wisarat tarbiya wa taalim gisee ak al wazir li shuuni saqafiya Yusuf al uh, mu ne ko dama bëgg ay scholarship ngir doomi Gambia Youssouf mu la ne ko baax na incha allah dana jox ñaari scholarship pour déwén maa ngi fàttaliku mu jël note bu ndaw bind ko ne ko euh, téyel note bii nii léegi nag ñu génn ci la tànn Omar Saaj ak Alaaji Sekk eh, jox leen Eh, scholarship yoy noonu maa ngi fàttle ko ci lañ ma yónnee seeni kayit bi ma ko jotee fekka nuut boobu yusuf mul la bindoon daf ma ko bàyyee bi kayit yi ñëwee rek ci laa boole kayit yeeg nuut bi rek ma dem bee ci yusuf mul la ma jox ko ko eh, jox ko tamit nuut bi ci la fàttaliku eh, jotaay boobu ñu amoon ak moom ak cheikh moustapha ci la ñoom Omar Sadj ñëw fii ak Alaaji Seck gannaaw loolu tamit am na ñu bëri ñoo xamante ni alhamdulilah tabarakallah jaar nañ fii ci almahad diini am ñoo xamante ni sax tam nañ ba jeexal jaamiat qatar kon ñu gis ne xam-xam nekkoon na mbiram xam-xam nekkoon na li ko soxal xam-xam nekkoon na ci awlawiyaatam yi ndax daf daan wax ne foog ñu jàngal xale yi jàngal leen bépp fan nag fànn xam-xam bëgg naa xale yi am ko bëgg naa xale yi jàng ko bu baax foofu moo nekkoon doorinam fii ci Qatar fii ci lu aju si ay minhaj diraasiya yi ay scholarship gannaaw comme ni ma ko waxee Omar ak Alaaji am na ñeneen ñu fi jaar ñoo xam ne macha allah am na ñu fi nekk sax ba léegi. ñun ñii di wax ak yéen ci. تري مؤسسة أم القرى للدراسات الإسلامية والبعوث العلمية كلن أمي منحة دراسية من أي سما يمر يبري يخمن تنني آه، فلن نكون ني نكون مدرسين ني نكون طلبة mu nekkoon ni koo xamante ne nii seetu jege ñaale waaye lum seet rek mooy koo xam ne xëyoo na lii nga xamante ne nii maa ngi koy maa ngi koy joxe mu nekk tam loo xamante ne gis na ne nit ñi ku leen jàppale rek incha allah lislaam dina taxaw Euh, insaaniya dina taxaw mu di soon góor góor bu baax a baax a baax comme ni ñu ko waxewoon ci njëlbeen wax ci moom tuuti lay nekk rek ndaxte kenn mënu koo jeexal ndax li gën a duuf ci nag wi xaju ci cin li comme ni ko olof di waxee waaye man ba ma doon nekk foofu noonu nekkoon na koo xam ne nit ko oyof la mu nekk nit koo xamante ne nit ku bëgg xam-xam la nit ku bëgg jàng la nit ku ama am yërmande la ci doom aadama yi bi may ñëw foofu gannaaw yàlla ki ko sabab mooy almarhum Cheikh Ahmad Tidiane Dionga waaye bi ma ñëwee diir bu gàtt ba ma fa am Cheikh Moustapha daf ma jël boole ma ci boppam mu mel ni ku ma yàgg xamanteel ndax maa ngi tàmbale woon foofu noonu di jàngale sa valsal ibtidaa yi du ma ko fàtte benn yoor yoor mu ñëw ci bunti classe bi taxaw ma ko sax xel mangi jangal xalé yi mu taxaw diglu be si yag mu dem office am bu mu ci la ma koo ci la ma oo mu ne ma ni nga jàngalee daf ma neex torop te suma ma ñu jàppalante su ko defee suñ la mënee jox double shift nga x afternoon bi ak idaara bi jàppalanteeg mudarrisiina yi mu ne waaye nag dafa nekk shibhu tatawwu mën mu ne ko amul benn problème. Ah, bi ñu nekkee ba àgg ci marxala idaadiya si leen daal di nag jël suñuy kayit yi yónnee ko ah, li tax ma ne jur la fépp foo xamante nii rek ah, wayjur dina fa taxawu doomam almarhum taxawu nañu fa ak uh, ay jarbaatam ak ay rakam te su ma waxee jarbaatam mooy almarhum ustaas jongo su ma waxee rakam rek mooy ustaas Aboubacar Lo wallahi amuñ seeni fay uh, bi loolu xewee ustaas Aboubacar Lo tey di raisul muassasa bi ñu jéggal ma ci ni mooy waxee ustaas Aboubacar Lo moom moo taxawoon ci suñuy passeport yi mooy si passeport yi buloo yi bu ñuy ut loolu booba ñun xamuñ ko xamuñ lu ñuy wax affaire yi passeport xamuñ lu ñuy wax affaire yi maanaam li nga xamante ni ku war a tukki loolu la war def xamuñu ko rais si boppam moom moo yëkkati hundred dalasis jox ma jox Omar pour ñu ut suñ kayitu juddu yi loolu moom moo ko fay si lañ ko dem ut ko ñi jël kayit yi yónnee ko waaye lu jiitu loolu dafa demoon Doha Qatar bi mu demee mu dem wisaara tarbiya wa taalim ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ca fànn boobu ci wàllu minax yi moo ne leen nag man dama am suma ay xale yoo xam ne dama bëgg ñu xabool leen ñu ñëw jàng si fii ki mu fa fekkoon kooku na ko jox ma seeni tur xelam daj rek Omar Aboubacar Sadj ak alxaaji Omar Seck mu bind ko ci benn waraqa jox ko ko raïs nag bi mu ñëwee ci tukki moomu noonu ci lañ ñi tarché loolu mu ngi nekk euh, on the 13 January 2003 li may wax ni maa ngi amee wasaa'iqi moom moo bind leeta bi moo ko sign bi tawqi raïs moom ci boppam bi loolu xewee ñu yónnee kayit yi January february march ba april ah, yaram na mam daal nag tawat bi mu tawatee nag mu ooluñu man ak Omar ci tàkkusaani suuf lañu ooluñu dem këram bi ñu demee mu nañu nag dama feebar waaye nag dama bëgg ngeen xam ne maa ngi seen mbir ci la génne kayit boobu noonu wan ñu ko bu ñu ko wanee mu waxtaan ak ñun waxtaanu sori loo xamante ni nit mënu su ko toog di ko wax ba mu jigi ñun ñëpp ñu daal di jooy mu jooy ñun ñu daal di jooy ñu ne ko incha allahu rabbi sax da nga si da nga wér si jàmm danga dellu si ñun ñëpp ñu ñaanalante ak moom kere lañ ko mujj a teg bët mu doonoon mawqif bu bu mettee métti loolu nekk April yàggul rek mu génn àdduna yan na ko yàlla jégal jox ko jannatul firdawsil aala ñu fàttaleku lam ñu doon wax mu nekkoon mawqif bu bu métti bi loolu xewee ñu daal di ñëpp ñu lépp school bi keraa mu métti trop bi ne oustaz génn na àdduna waaye fekk muamalaat yi def nañ ko dem na tooxa yàlla def bii loolu xewee ñu xabool ma man lañ xabool ci at boobu noonu bi xabool bi génnee at boobu juróomi minha moom lañ am ci lañ ma xabool ci lañ xabool Sayda Roqiya Maane ak uh, Ousmane Mbow bi Biteye ak foog naa Mouhamed Seck daal su ma juumut at boobu juróomi minaax moom la mu assasa bi am kere at bi nga xam ne ci la génn àdduna bi loolu xewee madame Doha fekk fa suñ moom ak ju baax di Moussa Ba moom mi nga xam ne moom moo doon dox affaire yi minaax yi foofu moom ci moom lañ ko joxoon moom moo doon toppatoo kayit yi bi ma ñëwee nag ba agsi nag mu ne ma nag ñëw nga waaye daal li ma am pour wax la mooy ne su fekkente ne ni amuloo jaamia maanaam xaboolin la si jaamia bi rek anta fachil parce que li nga bàyyi Gambia moom nga jëlee fii moom nga yóbbu te loolu amut sens mu ne ma nag jaamia bi fii pour dugg fii nag ñu ne jafe na waaye dara jafewut fii li ko gën a jafe mooy am minha bi loolu la defoon suma bopp bi toujours loolu moo doon woo xam ci man alhamdulilah ba tey ci kaw loolu moo tax li ma doon wax ci aaya bi ci wàllu kóllëre nag falaa jëm si nii bi loolu xewee am na ñañ fa fekk ñoo xamante ni foofu lañ leen xamee ñu am nag liñ doon dugal si suñuy bopp yi maanaam ne jaamaa bi nit mënu ko fee nit mënu fee dugg parce que fii jàng mi dafa jafeñ da ngay fexe nga ut visa pour dem Europe waaw nga dem Europe dem xos lu jub bi biñ ma waxee loolu. duguna ci ma amone visa sengem bi ci force at bi nga xamanteni ci la ñëk dem Qatar ñew Gambia ñib siwaat ñëwaat am bu UK bi bu Almania bi almuhim dawalul xar ne yu bari ñi may wax ne ma nak da nga wara baye jang bi fekk suma xarit bi Omar Mufa fa ko fim tollu ni nii mu assa de daf ñu jël indi ñu fi te yàlla dafa def man jàmbu xeebu bii man la mu assa bi njëkk a jox min ha dirasiya kon ñu ebal na ma ñëw fii ma war fee nekk mu masil si mu assasa bi war a fexe pour minax yi commencé waaye di jéem a fexe pour ba dem Europe mooy nekkoon est-ce que duñ bloqué school bi te ci boobaa loolu dafay nekk loo xam ne musiba la mu ne ma loolu moom musiba la moom ma ne ko li ma gis daal fi mu toll nii jàng mi metti na wala méttiwut ak lu ci mën a xew minha bi nga xamante ni moom lañ ma jox am ci man yaakaar ba jox ma ko naa ko jàng ba mu jeex su ma amee jaamia bi salaamun xayran su ma ko amati tasuma seen yaakaar te war naa rus bàyyi fi jàng mi dem yurop su ëllëgee bu ma dee ba fekk fa almarhum kon dinaa ko uruj kon dinaa ko uruj loolu daal duma ko def du ma tas yaakaari mu assasa bi ma continuer di jàng si biir njàng mi nag ñun tamit bi ñëwee wax dëgg ne yàlla am na jiwóor yoo xam ne ñu ngi ko doon def te li ma wax rek mooy na tullaa bi yëpp képp koo xamante ni jógee ko nga Gambia nga dem Doha am na juhdu bu rëy boo def ci wàllu minax yi parce que du ma mun a tudd tudd tudd tur danaa juum waaye daal ñëpp ma kenn. te li ko firndeel am na ci dufa boo xamante ni foog naa fi kimina ak ñaar moom la mu assasa bi am te ñu defoon juhdu boobu noonu mooy tullaabi umul quran yi nga xamante ni fekkoon nañ ma foofu noonu bi loolu xewee ma continuer rek di jàng yàlla dimbale ma nag ma am mu àddal bu tax ma mën a dugg ci jaamaatul qatar kere mu doonoon wax dëgg yàlla ndam lu rëy ci njabooti umul quran ak sax ci njabooti Gambia bi parce que booba jaamiatu Qatar kenn nekkutoon fa koo xam ne gambien nga te loolu tam maa ngi ko doon bàyyi xel bi ma amee nag ah, muaddal bi pour dugg ci a bi loolu nag dafa am nag ruux boo xam ne dafa ko def ci tullaa bi yi nga xamante ñu ngi fa Omar Bayloo ah, Ismail Yanqub waaw ñooñu laa fa nekkatoon waaw ñooñu ñooñu waaw ñooñu ñooñu laa fa nekkatoon après si la ñoom Euh, suñu mag yi ñëw euh, Moustapha Bachir Gaye ak ñeneen ak yeneen du faat yi yooyu noonu ñooñu noonu ñëpp ala ayatihaal bi ma duggee nag si laa leen wax man tamit nag na leen ne balaa maa xam ne man ngeen a jàng dangeen ngeen may fekk ci jaamia bi seen mën a jàng man foofu laa koy xamee parce que man moom booba man dugg naa si jaamia bi ba pare loolu tamit nag am lu mu leen def ñoom tamit ñoom tam ñu bàyyi loolu alhamdulilah Omar bi mu ñëwee am mu àddal fawqa tisin bàyyiloo ñëw am fawqa tisin Abdoulaye Diané noonu Ismaila tamit noonu wax dëgg neex yàlla bi ma duggee nag ci jaamiatu xatar ba pare ma ma nekkoon ci yeneen muxaawalaat yi ma doon def loolu ma indi fii ci émaraat fii nii alhamdulilah bi ma ñëwee fii itam yàlla dimbale nañu ñu jàng ba jeexal maa ngi doon nekkoon ci kulliyatul idaara wal iqtisaad def ihsaa bi loxol inglisiya bi ma jàngee ba jeexal alhamdulillah maa ngi liggéey fi mu toll nii ah, loolu moo tax ma wax ci suma biir wax ci ah, ne nit danga war a am colère parce que tey bu fekkonte ne nii demoon naa Europe dafa nekk maslaha boo xam ne maslaha xas la tey nit ki bul jiital sa maslaha bopp danga war a seet maslaha umma bi rawatina nag lu em ni tey minha ni mu jafee. tey nga dem bi buntu bi ubbeeku nga dem tëj ko loolu musiba la looloo taxoon ma wax li ma wax nii kon ñu ngi wax ne rek umul quraak amuñ fayam di wax tamit ne képp koo xam ne jaar nga ci keppaari umul quraan rek war ngaa wax war ngaa mun a wax alhamdulilahi rabil alamin parce que képp ku fa jaar rek yàlla def na barke si sa njàng mi donte sax da nga fa jàngee benn xaraf rek yàlla def na ci barke ci juhóot ci ñaan yi nga xamante ni almarhum def na ko fa ak ñi nga xamante ni ñoom la bokkatoon mu asasa bi te loolu tey ñun ñëpp teg nañ ci suñ bët tey boo xoolee umul xuraa ci at tey ñi nga xam ne ñoom la moromanteel jiitu na leen boo xoolee ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ci yenn mada si madaaris yi ne ci réew mi jot na leen te kon wax dëgg neex yàlla kon loolu tey ndam la lu rëy moo tax toujours may wax rek ne ñi nga xam ne dañ jaar ci umul qura ñun tullaa bi nañ ko bàyyi xel bu baax parce que tey moo tax ñu doon lu ñu doon tey moo tax nit ñu xam ñu te képp ku ñu respecté fonk ñuy mu asasa bi moo tax te si boobaa loolu tamit dafa am référence am na marja mooy almarhum ak ñu mbokkat liggéey bi ku mel ne al imam ki nga xam ne mooy rais mu asasa bi di tey oustaz Aboubacar loo ak almarhum ñi jiitu àddina yal na leen yàlla jéggal jox leen jannatul firdawsil ala kon maa ngi waxaat rek beneen yoon ci ma mbokki tullaa bi nañ bàyyi xel mu asasa bi bu baax parce que tey lu raïs doon wax teg nañ ci suñ bët ne mu asasa bi tey mooy suma samra kon samra boobu noonu tey mooy lan mooy njabootam gi ñi nga xam ne jaar nañ fa jàngee fa tey doon ay kawaadir ñi nga xam ne tey def nañ taxasusaat ci majaali utee ñii ñu ngi ci def nañ muhaasaba bi loxol ya ñii def nañ ilmu loxo ñii def nañ handasa ñii def nañ alaqatul amma ñii ñu ngi ci tibb majaali bari am na sax ñu ci doon ay doctorat kon tey loolu tey lu rëy la